mbokk yi ba léegi rek ñu ngi ci journée vingt 24 bi combat technicien yi nag moo ngi nii titulaire gros fil ah borom Cambérène parcelle unité 4 1 ba 26 bëgg naa la ci loo nekk. oui sant bu baax Lamine di la ziar bu baax euh, di sant journaliste yi journaliste fi teew ak samay gaay yi ma àndal nii ñëpp maa leen di sant. Hmm. waaw di leen gërëm bu baax di ñaan yàlla làmb ji ma jëm nii yàlla may ma ndam ci darajee Seydina Mohamed. yaa gros fil la. gros fil waaw maa gros dama ko xam bu baax. dama seetaan dama seetaan ay combat avant may bëre ak moom. Hmm? ay journée yu ñu bokk ak yeneen journée yu ci topp dama ko suivre dama ko seetaan bu baax xam nga. man bër bu may bëreel dama lay suivre bu baax doog lay lay jël. waaw non loolu am na lan na. loolu am na nee na daf may may sens. waaw waaw daf may may sens man xale laa may yëg ko et puis nee na fan sam nga. waaw non am na. <laughs> Hmm. waaw. Goro. waaw jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba maa leen di siyaar. di la nuyu Lamine di nuyu xale yu jigéen ñu journaliste yi li ma waxee journaliste laa njëkk a jégalu barke si ñu Fallou Mbacke keroog dama leen ameel bor te foo ma fay leen ko man Gorée Filé waratuma juum te li ma juumloo rek mooy leen sama fit ak sama jàmbaar moom ma juumloo. loo defoon lan nga defoon non damaa juumoon si combat bu mu jugee. Ah. te c'est la première fois ma def interview pour di leen jégalu yéen journaliste yi journaliste bu amee comment ñoom ni ñëpp dañ ci war a jàpp. jàppaleen ma. xamul tax tey li may rek. ñun tey bu ñu àggee fii ñoom ñoo tax xam nga tey téléphone nekk ak ñoom tey lii bu ñu génnee fii àdduna koy suivre comme la ñu man lépp lu ma am ak mbër mbër bu ne bu fay ko ay milliards yeneen ko ko jox kon maa ngi ciy bëggee baat leen sant man maay mbëru journaliste loolu man maa man maa ko fi indi. te te je suis fier pour. doo mbëru journaliste teg bañ andil problème. te xam loolu. man nag maa leen di sant bu baax di leen gërëm ñëpp. sa adversaire nee na. di nuyu waa jàmm fu ma jugee. waa Sam Sam 1 ba 2 ba 3 maa ngi leen du nuyu ñu ma àndal kii lu ma ko wax bëriwul. waaw kii sama fansi la. fansi la kii day rek doon rêvé bëre gorofil. waaw te ñoo def ne man fin deux mille fin deux fin vingt et laa dugg si def ma dara si làmb defaguma dara si làmb. kii sama fansi la. Hmm. daf may bëggee. kii dafa mos a toog mu naan man damay rêvé bëri bëri mbëri ndax ku bëre toog ñoom mel ni defoo dara si làmb. waaw la mais kon ñoo fexe na ba suñ ko ma ma taxaw nu mu ko waxee ak nu mu taxawee bu kii maa moom musuma waat signature mais barki alaaji Fallou Mbacke bu ma yaakaar buñ taxawee si géew bi hmm. maa moom bu ma ko defee nii muy àgg na suuf nii bu ma ko taalalee sama loxo kii maa moom buñ duggee si géew lu ma xamala leen maa moom buñ si géew hmm. billaahi wallaahi fu ma seen day daw barki Serigne Fallou Mbacke laaj sama adversaire yëpp yi ma bëri laaj leen xam nga ngay bëri yow xam kii nee naa ma ko maa ngi ko soo gis seetaan ngay combat barki Serigne Fallou Mbacke musuma kii day waaw dégg nga mbër ñuy tudd ci mbapat bi ci mbapat bi ay kilifa laa lay wax leen dama fu ma jaar ak ñoom. kunkale barki Serigne Touba Mbacke laa lay damay bàyyi mu mais gis nga kii nii. mu may ma wax gis nga kii nii. Hmm. bis boobaa na bis boobaa laa waxal ni hmm. dinaa ko dinaa ko dinaa ko daan jël bu rëy. Hmm. incha allah fu ma ko jàpp jëlee la kon nu ko moom internet la doon bëree man xam naa ko bu baax daa mën a wax. mbër bu mën a wax la. internet laa doon bëreel man. moo ko dàq wax junni yoon. te teewul man ba ma ko jàppee ci sudi laa ko dugal. Mhm. dégg moom mii laa lay waxale moom mii. bu ma ko jàppee. fu ma ko jàpp jël la. nee na fu mu la jàpp jël xam nga xam nga leenaa la wax xam nga wax ne xam nga wax neex na trop. wax neex na trop mais jàkkaarlu Baye Fall bi si biir géew bi mooy coow. Mm. kii maa moom kii tey nee naa bu indee fii ñaari oto man maa tax te te te rôle boobu démb démb démb laa ko joué communication boobu man maa ko joué démb barke Serigne Touba Mbacke barke Serigne Fallou Mbacke démb nii laa koy de démb nee naa kii maa moom luy neex si man lay jugee nee naa la combat combat ñoom Ada Fass ak Ada Fass ak Coly Faye boobu bis boobu bu jaayoo man maa tax kon bis bi tamit nu muy amee boo mu ñëpp ràññee ko si man lay jugee te billaahi wallaahi luy neex si man lay jugee luy naka si moom lay jugee internet man maa bëre moom mu bëre ñaari spécial la mais man sama bët bi yëpp ci moom laa ko doon teg déggoo barki Serigne Touba ne ñaar ñi ku ci daan laa moom moom laay bëri. li ma la wax rek Lamine kii sama fang si la. man dama xam nga ñun mbëri jàmm sam-sam ñun mbëri jàmm gën sam-sam si gàmbaaw. kii bu ma ko si digg yow maa fii ngay wax yow fii ngay wax mais maa yow kese digg yow barke Alaaji Fallou Mbacke boo duggee internet nga seetaan doon wax wat ni bu ma jàppee laa bu jeex kii bu ma ko jàppee jël top 5 laa koy dugal journaliste yi ñu ngi seetaan leen leen leen dafa am leen dafa am maa ngi bëggee maa ngi maa ngi nuyu journaliste du nuyu patron journaliste yi du nuyu camé du nuyu du nuyu patron journaliste yëpp maa leen di ñu tey micro micro micro santar yëpp maa leen di bëggee du nuyu waa jàmm gën sam-sam tali mam jaar tali karo combat bi bàyyi jël tarkindaa laa ko may combat ba borom bi moom laa ko jox ak bàyyi jël kolobaan di ko tamit di du ci woo baax yaay baax yaay du mel ni Baye Modou ñoom laab ñoom Samba ñoom Demba bu Gorofé xam nga ñoom Abdou ñoom ñëpp maa leen ciy woo Pape Gueye maa ngi koy baax mu ñëw jàpp si ko ma monsieur le maire ñoom ñëpp maa leen ciy woo njëkk combat bi laajal laajal laajal sama gars avance dafa ñëw rek ma dem fajoo ndax entraînement ba feebar barki alaaji Fallou Mbacké laay wallaahi tey naa xamal leen mm. bis ba luy neex man si man lay jóge muy naqari muy mu koy neex mu koy naqari ah, am na mbër yu fi yu ko fi waxoon man ñi may ñi may jàppale jamono ji dama am sas bu bari ñi may jàppale jamono ji nii extérieur buuba jabaay xaadim ay ñoom pap Makuja Italie Makuja France Jibi Gueye Jibi Gueye Makhoudia Jibi Gueye euh, Modou Modou Modou Lo Louga yi ay ñoom Cheikh Sarr ay ñoom grand grand Cheikh di leen ar di leen bëggee bu baax gaa yi ñu maa leen di sant di leen gërëm parcelle un parcelle un un ba vingt six ñoo jàpp ci waa foora maa leen di bëggee du nuyu mbaaru mbaari ak baawlu baali di nuyu tamit waa Fora waa waa mafia xaar yàlla bi maa leen bëggee bu baax sëfër camion yi sëfër kalandoo faaw ma woo ko Lat Diop. Lat Diop Lat bu may bëree day sonn. jërëjëf jërëjëf ci nee na taal bu may day sonn ci man dañ may jëndal ay bolo bu tigga lañ may jëndal. jërëjëf maa ngi jël lépp ngir yàlla di leen ko tegal. seen loxo ngeen jàppale ma jëndal ma ay bolok. jërëjëf jërëjëf jërëjëf.